kër docteur digle masque ya ak raxasu gi ci la yéene kaay bi ne dinañ ko màggal googee màggal ci les échos porte parole yoon bi sëriñ Bassirou Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir di ci indi ci ne mbir mi moom ki ci yore kàddu gu mujj gi xalifa bu tedd bi la sëriñ Muntaxa Bassirou Mbàkke moom kilifa gi di fàttali kàdduy xalifa bi ci bi mbas mi teewee mu ne ndawal sunu borom la ca bu mission jeexee mu wàññiku moom ku tedd ki sëriñ Bassirou Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir nataalam ñu fekk ko ci Vox Populi mu naan ci màggal gi mooy suñu ëpp dayoo ci murit màggal gi mooy xew-xew bi gën a ràññeeku ci Afrique xalifa bu tedd bi mu ne mu ngi soññi ñëpp nag di ñaax ñëpp ci colum masque yi la tribune ak yooyee dénkaane xalif général kulu murit ci wàccoog matuwaayu fagaru kër docteur gis ne Serigne Muntaxa Basiru Mbàkke mu ngi ñàkk Touba médecin chef diwaanu njaareem di ko ca jàppale docteur Mamadou Dieng ba tey ci la tribune di ci fàttali ne corona baa ngi fi ba tey ci réew mi di defi lorangeem ak i musibaam ak it di law ci Sénégal kon ci ñëpp jàpp ci wàllu ñaaxe geeg gi ngir gi matuwaay mu ne ci bërëb bi mbooloo yenn yu ci mel ni jumaa jàg la ko wër ci résidence ya ca kër sëriñ si naka noonu it ci gaaraas yaak marché yi enquête yéene kaay na leneen lu kilifa yi bëgg indi saafara mooy jafe-jafe kër docteur ci kanamu ñi lànk defi test covid 19 matuwaay beneen bu ñu jël mooy tereem njaay ci fépp fu tofoog am mbooloo lu toll nag ci téeméer ak juróom fukki bërëb yi paj ak nemmiku dinañ ko sanc ngir askan wi wàllu politique waxtaan yi ñeel dialogue national bi l'observateur xëye wootey gox goxaat yi nu dëgmal ak ndëgg sërëx yi ci mën a am su fekkoon ni dañu ko ko toxal rapport final bu commission bi nag di waxtaanee politique ci dialogue bi yéene kaay bu groupe Futurs Médias njort mu dugalaat géopolitique bi ci réeroog wërwërloo ndax bokk na ci a bokkati i élection ci i collaborateur am les échos ñëw ci poñ yenn juboo ak yi gindi ko amagul ca yooyee waxtaan politique yéene kaay bi ne bokk bokk na ci lañu ñu and di léegi lu ñeël marsi muy doxi ñaxtu yi su téré am kilifa yi ñetti fan laata ndaje mi lañ ko wara def jibal na ñit ay xalaat yi digle ci yër yëraat gi war ci article 80 arrêt Ousmane Gomak lu ci melni li liy lo lélé yenn kilifa seeni droit politique ak civil fa jubo amagul nak moy ci anam wutuk maire bu faatu ak it ci mbootaay gi wara organiser élection Sénégal yéene cabinet tay nak li ñuy waxtaane moy cumul gi maanaam booleeg ndomba tank bu président ak président parti wotey gox goxane yoyé le quotidien mum la mu njort mooy bi yoon liste yi bari lool ci ñi taxaw sampi ndënd di laaj seen gox wàllu parrainage gi nga xamante ni juboo nanu ci dindi ko ci local yi waaye yaanaa maar ci yéenekaay bi ñoom seen gis-gis mooy loi bi ci boppam ñeel parrainage jóge fii magistrature bu Sénégal ak kerse gi ci fan yi ko noonu xuloog rubinek mbedd ñenn ci ñoom le témoin xëy di jàngat li waral cooxe gi kaay bi ne su weesoo ñàkk yamale gi ci wàllu altraite gi ca baron yi gën cee profito gi dugal loxoom ci seenub liggéey ak ñenn ci kàngami magistrat yu ko ko nangul moo waral fi puug jeune magistrat yi forum civil mom ci président de la république ci a ci di forum civil Birahim Seck yekeuti ci la tribune juge ba Amadou Dem batay la tribune Mom lamu gis justice bi Momul Bopam ñun ñep ñu danger Walu football record xey natalu Lionel Messi yene bi ne équipe bi Manchester City Kalidou Koulibaly mom doomu Sénégal bi record ne réservé avion privé ci juroomi fan ci septembre lañu Manchester City walu lamb démb ñëw ci combat bi di Modou Lo Ama Baldé ak promoteur ba ko war a tëgg di Luc Nicolaï yéenekaay bi ne weer ginnaaw ak génnam ci kaso bi patt la ca def yooyu ci yàbbiwu ci ci combat boobee Jules Baldé moom ne xamul sax fu Luc Nicolaï féete waaye Biram Ñing moom nee na combat bi am na te yaakaar 100 pour cent gorom Luc Nicolaï di mbër mi di sos ci xët bu njëkk bu observateur waxtaan wu yaatu dox diggam ak yéenekaay bi ci na muy dundee léegi ay projet yu bees sos ne yenn ci supporter nag ñu ngi sàkku ci moom fan yi mu dellu siwaat ci arène bi